sais plus, je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Can you judge it? To Assemblée nationale. Yeah. Jara mali dan suñu xel li ñu doon xaar yegg jóg voté pour ngir mën a jot fu

opportunité ngi opportunité ngi si élection yi jëlal sa carte vote pure opportunité bagni je nii lu ñëpp doon moi SOS na li mooy SOS la liste pure bu kenn des dafa jot ñu delloo politique ci xam-xam justice développement solidarité avec pure di nga gis Sénégal transparence ku ne jot sa wàll avec pure ci assemblée nationale Votez qui nous la liste pure c'est élire des députés compétents et sérieux voter la liste pure c'est élire des députés qui sont au service du peuple voter la liste pure c'est être sûr de nouveaux départs pour le Sénégal Sénégal dara si c'est pur je m'engage pour voter opportunité Guini opportunité opportunité Élection. Je élection sais sa carte vote pur opportunité baa ngi nii suñu secrétaire général Ilimane Sembène yabal ma fi tay ñu ñëw ànd ak suñu mbokk wa pur yi nekk fii nii ànd ak euh, secrétaire général bi euh, euh, Saliou Saliou Diallo ak suñu mbokk Baba ànd fekk fi aussi sunu mbokk Yewwi waa Yewwi askan wi euh, ñoom Ousmane Rougui ak euh, ñoom euh, Moustapha Seck bi nga xam ne moo yor Pastef la nekk mais nekk aussi coordonnateur Yewwi askan wi ci ci ci ci Bambilor ñu ñëw pour def opération yi ñu faral di yi ñuy def rek nga xam ne PUR dañ ko xam ci mouvement citoyen ñu nekk ci période nawet période nawet nag ku ko xam xam ne ci la ñuy def reboisement parce que heure boobu ci la garab di di di màgg ñu xam aussi njariñu garab ci euh, ci ci dund bi ndax euh, garab dafa bëri njëriñ euh, mu xaw a commencé nag di raar waaye pur ñun action citoyenne bi c'est pour jéem a pousser waat nit ñi ñuy jëmbat garab ndax garab daf ñuy indi dimbale ci wàllu noy yi ci wàllu oxygène daf ñuy dimbale aussi ci wàllu wàllu ker daf ñuy dimbale aussi ci lu bëri même ci wàllu xëcc taw ak ci lu bari moo tax Euh, fu ci département ci fédération bi yëpp ñu def ay ay opération de reboisement tey nag ñu ñëw fii Bambilor ànd koog suñu waa mbokk Bambilor yi def un tour daal di euh, daal di euh, jëmbat ay garab aar ko ba nga xam ne danañ ci danañ ci mën a am yu mucc ayib mais bu ñu paree ci loolu mënuñu wax dara te def waxuñu ci inondation yi aussi ndax tey jii nii mbirum inondation yi dafa dafa lëmbee diggante Bambilor ak Sangalkam ba Tëngéej donc euh, euh, nit ñi nek ci jafé jafé té ku wax ci mouvement citoyen aussi wax ndimbal bo xamné yang koy apporter wa population bi motax ñu né danañ def ben geste symbolique dem gis euh, chef de chef de village dal likoy koy ay bon essence pour jappalé ko ci pompage bi nga xamné ñu ngi koy pomper pour ndox mi génn ci kër yi lool dal moy li nga xamné mom moom la ñu jóg pour taxaw ci euh, pur, c'est toujours euh, au service de la population, c'est toujours au service qui euh, askan wi aussi comme nous pour un bon cadre de vie mais aussi pour le développement pour Réumi. nous avons une opération présidentielle Pur, pure nous avons un candidat un candidat ma avons préparé et bientôt nous allons ñu dégg Euh, ci présidentielle yi. non ñun yu moom la moom la kilifa gi dénk dénk parti bi mu yor ko yoriñ bi mucc ayib di ko rendre compte nag mais le président du parti c'est Serigne Moustapha Sy te ñun waa PUR li ñu bëgg sañ nañ koo wax mooy Serigne Moustapha nekk suñu candidat waa PUR loolu lañ bëgg loolu lañ koy ñaan léegi nag li ci des moom moo ko moom. mën naa génn nangul ñu suñu suñu suñu bëgg-bëgg comme mën naa génn it nañu moom xëy na am na beneen mission am keneen ku mu joxoñ bu boobaa kan ku mën a joxoñ it ñu ngi ci gannaawam ndax ñun duñu teggi kàddoom dañu ne Serigne Moustapha la ñu bëgg mu nekk suñu candidat bu fekkee ne moom décliné na suñu nangul nañu suñu demande alhamdulilah bu fekkee nag eh, xëy na ci ay chargem am eh, eh, moom du ko mën mu joxoñ ñu keneen kum ñu mën a joxoñ moo xam yum la moo xam keneen la en tout cas comme ñu mën a joxoñ ñun duñu tey kàddoom dañ koy jàppale comme si moom moo nekk ci kanam bu soobee yàlla. mais lu ñu ëppal solo mooy askan wi maanaam ñu nekk su jàmm parce que su askan lañ dund maanaam lépp loo xam ne da koy améliorer mooy dakoy yokku su wàllu dund bala su anam condition de vie wax dëgg yàlla loolu si la parti pur nekk te ay valeur am loolu la. mooy justice solidarité et développement loolu lay prôné. travail bi maanaam su nekkee saaliw dong dara du dem moo tax ñun ñëpp ko bokk ñu ñëpp ko songandoo am tamit ay bonne volonté wax dëgg yàlla ñu si jàpp bu baax ci journée bi. Euh, journée bi nag ni mu tëddee woon mooy euh, reboisement la woon plus remise de cinquante litres de gasoil ñu destiné ko mooy ñoo xam ne dañoo am machine. te seen koñ dafa am mënd loolu nag la PUR ñëwoon pour en guise de solidarité rek xam ne PUR éto service de la population xam naa ne loolu dañ ci kontaan trop wax dëgg yàlla euh, te lii ñaan nañ yàlla ñu koy chaque année ñu koy def yàlla kon ñu ngi leen di encourager bu baax a baax ndax seeni mbokk nekk si ay xat-xat ngeen jël seen ñaar dërëm ak seen fukki dërëm boole ko jox leen ne leen mas seen massa jooju am na fu mu commencé mais amul fu mu yem. ñu ngi leen di encouragé nag nag te bépp parti bu fi nekkati tey soxla réew mi war ngaa xam ne yow waa réew mi soxla nañ la mais yéen xam ngeen ne waa réew mi soxla nañ leen moo tax activités réew mi lii réew mi soxla ngeen def seen xaalis seen alal ndax jëmbat garab jël essence joxe ne pompe leen seen i kër mu set. loolu ak citoyen dëgg la kon ñu ngi leen di encourager bu baax lii ngeen ma jox nag dinaa convoquer tous les délégués de quartier de Bambilor ne leen lii waa parti piir ñoo ko fi joxe ñu xam ne lii parti piir joxe dëkk bépp engagé na leen ah ndax kuy def da ngay defal saw askan xam nga def lu bari defin wi sax mën naa ñaaw mais deflu lu tuuti mën naa rafet te defin wi rafet ba ña nga ko jox ñu am considération bu rëy xam naa ne man mi ngeen ko jox am naa considération mais wóor na ma ne boo délégué de quartier yi bu ko ëpp ngeen di def ndax doom day dimbali way juróom te tey ñii délégué de quartier yi si teewaayu alaaji Malick bu ñëwee donte man dinaa wax mais moom dina wax li mu gis te li mu gis kenn ku ne gis na ko te lu ne fang kenn du ko si jeex kon ñu ngi leen di encourager di ñaan yàlla lépp lu ngeen man yàlla na yàlla def yokk ko te it am nañu yaakaar si ndax ki am dërëm di ko bokk ak yow bu la nee bu ma amee junni di nga suur di nga war ngaa gëm loolu. donc ñun dañoo invité ñu ñëw fekkee lii ndax lu rafet lii gor bu ne waroon na ko ñëw fekkee en tout cas tey waa PUR dañoo jël euh, initiative purifier euh, atmosphère commune bu Bambilor moo tax ñu jël.

à Bambilor pour ñu mëna évacuer ndox seen kër lolu mënuñu saluer ko di ensuite en tout cas comme chef de village bi waxé légui nit ki bu la mayé fukki francs ça yu amé million na la ne dina la may huit cent mille lu lèr la nous nañ ci bu baax donc comme Nico... El Hadj Abdou Aziz Guèye waxee mu ñeme wax ci turu waa Bambilor man tamit ñeme naa wax ci turu waa Bambilor ne leen ñoo ngi leen di remercier yéen waa PUR di leen encourager bu baax a baax. merci di rafetlu nag initiative bi ndax lu mel nii lañ doon xaar si ku ne tey initiative bi ñu génnee ko si waa PUR muy parti de l'unité et du rassemblement ñuy remercier seen SG muy Salif ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ay collaborateur ndax lii moom rek manu ko. fonga anda ak ñoko mëna mën a pour nga réussir ko anda si ak wa massification si parti bi anda si ak wa action sociale anda si ak mouvement femme pure ñom ñett ñoo initier li ndax ku ne xam ne ne jamono bi garab dafa raf si rew mi te garab dafa am lu muy def si doomu adama ndax eh, dañ place yi waron jëmbat garab yëpp dañ ko dag place jaay nañ ko garab amatu fi kon nit ñi noyetu ni oxygène bi nga xamne mom lañ soxla kon ñuy remercier côté boobu waa PUR ndax ñu ngi fi delloose loo xam ne joge woon na fi ñuy remercier waa Mbambilor ñi nga xam ne ñoom ñoo ko organiser di remercier suñu mbokk Ousmane Rougui saw ndax mu noon nañ ko woo mu amee ngant mais ñëw na ak beneen euh, responsable boo xam ne ñoo bokk Pastef ñu ànd ak moom muy jigéen comme nun depuis sa suba ba léegi ñu depuis 9 heures ba léegi ku euh, dara yitteelul doo fi yendu mais yëg nañ ne. ñu ànde woon nag ñun ci coalition bi ba léegi moom la ñuy dundal kon dañuy ñaan suñu ànd bi yàlla na gën a sax ba li fi nekk di ay yàqu-yàqu ñu jëlee ko fi ndax ku ne xam ne ne réew mi yàqu na nun nag dañ def face pour jëlee ko fi ak ak parti de l'unité et du ñuy wax ne nañu ñëpp xaar incha allah ñu ngi ñëw si élection 2024 dindi fi lu indi fi lu bees tax dindi fi lu fi jóge ndax lii ku ko gis xam ne lu ñaaw la ndax lu toll ni dëkk bu toll nii ndox mi foo toll mu fay daw am nañ yaakaar ne foog ñu am lu ko fi jëlee si biir loolu nag ñuy andi suñu soutien bu tuuti rek bu nu sañoon mu ëpp lii ñu andi carburant jébbal ko chef de village bi pour jàppale ñi nga xam ne jamono bi kenn ku ne xam ne ne am nañu loru si mbënn mi di wax ne ay fan yu néew wala ay weer yu néew duñ wax ne ndox dootu fi daw mais dinañ fi jëlee lu baree bari ba inondation jege fi ndax am nañ capacité bi te am nañ ay compétence am te incha allah am nañ yéene jëlee ko fi ak le parti de l'unité et du rassemblement. am mbégte am contentement ci dajé tay bi vraiment aussi représenté fi tam ñi nga xamante ne ñoo nekkal massification fi ci commune Bambilor ak commune Sangalkam parce que man man yoré massification ci commune Tivaouane Peulh kon donc sama mbokk bi ñu absenté su ma fi téwé day mel man maa lay représenter. kon amna naa yaakaar ne initiative bi ñu def ni vraiment des initiatives initiative rafet aussi ni ko doxale itam aussi dafa rafet je pense que li mom li may wax rek moy bu mu fi gej parce que chef de village gis na ko lii dal na xelam je pense aussi sunu coalition yi nga xamne mo moom ko sekkal muy ñom Ousmane Rougui gis nañu li itam aussi ñu leen di ñaan itam ñom ñu def la même chose su ko defé Mbambilor nek une ville de développement loolu daal lañ ci doli pour baña a guddal ñu ngi ñëpp di santé ñëpp wa salaam